di leen ziare bu baax ci turu fédération Safinatul Aman mu mel ni kii ñu ànd ak suñuy kilifa muy Serigne Mbay nga xam ne mooy taawu sëriñ Ndiaga Muxtaar yaakaar naa kenn du ko laajte ci Daaru Xuddoos gi. Euh, mu mel ni ki yéen it du ngeen doon ay jëmm yoo xam ne nun amul seen ak pay ndax donte kon noo ngi jéem a ànd ak yéen it yéen da ngeen noo téye ndax gis nanu lépp loo xam ne lii moom ngeen yëngu rek boole ngeen nu ci. ah boole koog nag yàgg di nu jàppale ci loolu xamit nag ndax événement yi nga xam ne moo ëpp ci nun muy màggal ak Kéré Mbaye yàgg ñoo jóge yàgg nañoo ñëw fii ngeen yëkkati matériel bi ñu soxla bépp joxnu te du ànd ak yenn sart loolu it mbooloo mi yëpp ko xam noonu la ko sëriñ bi xamee it ba tax na it dañuy xamal ne nun lépp loo xam ne moom la wilaay yëngu day na ngeen ci ànd ak ñoom nuñ ko bëggee ah barki démb boo njaay nag ñu gën rafet laal lool ci journée xasida bii nga xam ne Ah, sëriñ Muntaxa moo ko wootee ñu koy ñaanal suñ borom guddal aw fanam lool te wéral ay cëram ah, sëriñ Ousmane Mbacke moom it ñu koy ñaanal gudd fan lool ak wér ah, mel ni boole googe nga xam ne moom la suñu borom boole woon nu te loolee ànd ko ak waa ñaari guddi yi Ndakaaru mel ni eh, bañ ca jógee ba nëgën si loolu da ko feddaliwaat xam leen ne lépp lu fi yëngu rek nañ xam ne boole gi moom boole sëriñ bi la. loolu it mel na ni Cheikh Moussa Al Karim yàlla yàlla fayal ñu ko loolu rek la bëggan ci kër gi ñu ne jàpp suñu bopp ne ay donga donga waat lañ ci biir kër gi kon nag lépp luñ ci jëf rek na ngeen seere ne eh, bu dee benn la rek yéenewoon nañ fukk liñ fas yéene daal mooy ànd yéen eh, incha allah rabbi ci ànd boo xam ne bi it du day doon ànd nit ak ak sëriñam it nag ndax noonu lañ koy jàppee it ndax Cheikh Moustapha moom ab taalibe la woon ci kër gi donte kon lu ko suñ borom defee it loolee it moom lañ jàppee suñ bopp it nag fas yéene ànd ak yéen daal yàlla rek tax ñu ngi ñaan nag ngeen dolli noo sàmm téyel kóllëre gi bu baax a baax di ñaan suñu borom mi nga xam ne moo man a sàmm kóllëre mën koo téye it mu téyel nu ko waaye sàmmal nu taalibe gi it ba bu ci dara yëngatu ba ànd bi gën a rafet nde rafet na tubaarkàlla waaye mu gën a rafet te sax faaw rek eh, ba keroog nu koy bàyyeeg suñuy njaboot suñuy njaboot it di ko wéyal ñu ngi siyaar nag baax suñu Ibrahima kan mii muy kenn ci ñun koo xam ne kii wax dëgg yàlla rafetal na lool ci diggante bi ak rafetalam moom ak jàppam tax na ba dem na ba gis nga sax bu ñu def présentation ni mu koy waxee nun waa Safinatoul Amane loolu nag day benn rek dañu jàpp ñu daal jot na ne Safinatoul Amane ak wilaaya moom benn kër rek la noonu lañ ko fa yéene jàppe it nag asalaamaaleykum wa rahmatullah di nuyu sëñ Thierno di nuyu sëñ Massar ak mboolem fédération bi yëpp mu ngi leen di nuyu ñoo ngi leen di ziare bu baax a baax ñoo ngi rafetlu bu baax a baax kàddu yi nga xamante ne nii moo fi jip rek ci taxawaay di sant bu baax a baax itam ci yëg-yëg bi di sant bu baax a baax itam ci mobilisation bi di xamle rek li ñu tàmbalee woon wax ji daanaka waxoon nañ lépp muy genn njaboot la buntu néeg yee sore waaye ëtt bi benn la ñu jàpp ni rek ñenn ngeen ci ñun ñu jàpp ni itam du délégation bu ñëw fekk si li ñuy def danoo ànd di ko def noon yi rek lañ ko gisee euh, ko xam ëtt ba ngeen jógee itam xam njaboot ga fa nekk xam ni benn lañ ci jumtukaay kër gi loolu nag day loo xamante ni dañ ko fay fekk mag ñi nasoon ko nasin wu dëgër njaboot gi ñu fi bàyyi itam di ko sàmm ba mu agsi ci seeni loxo noonu yàlla dogal taxawaay yi fii ñu di ko taxawee waaye nu gis kuréel yi jaxasoo ki nga xamante ne nii moom lañ jaxasoo loola mooy rek li boroom kër gi yéene woon te mooy nu ànd doon wenn say di yëkkateendoo di tegandoo tur yi nag nu ci dara tur yi moom waaye jenn jëmm rek lay wutal su ni ma koy misaale rek mi ngi mel ni jenn jëmm rek daa am loxo ami tànk am na loo ci tudd day mel ni lu beru waaye lépp ci jëmm ji rekk la nekk waaw noonu rek lañ gisee mbooloo mi ba tax na noo ngi sant bu baax a baax yëg-yëg bi nga xamante ni noo ko bokkule ak ak yitte ju kawe ji waaye nag amut la neen loo xamante ni nii ak cant la gu ñuy ber ci jëf-jëg taxawaay bi ndax suñ bopp rek la ñuy sant bu leen gisee suñ bopp rek la ñu gis lépp lu ngeen nekk dal fas nañ ko yéene ànd ak yéen su ngeen nu ci gisut it damay jàpp ni rek ni la leen tënk xëy na jeneen yitte ju mel noonu moo nu tënk ba ñoo ñëw ñu jàpp ni yéen nu nekkal foofa ñu nekkal leen fa rek noonu rek lañ ko gisee waaye genn genn njaboot rek la boo xamante ne nii seen i taxawaay naka jekk lu yoon wi xam la fàttali rek ne ci liggéeyu jumaa ji am na ci boo xam ne waa Kéré ñoo aaye te ne boobu sëñ Moussa mi ngi fii kër sëñ Saliou gi nekk fi la toog ñuy roñ ci béton bi di dem ay gone ki jigéen ñuy tëgg eh, sëñ Moussa lam ca duggee dañuy ndax yàlla lu ñu kenn mënu ko tey ay gone ki jigéen di ko def te ba ba dañu kenn mënu ko waaye nee ni ndax yàlla lu ñu kenn mënu ko tey ay gone ki jigéen di ko def te ne ma booba waa keere ñoo aaye eh, di roñ ca béton bi def loola nag dañut ba suñ jonni tey ji kon noo ngi rafetlu bu baax a baax taxawaay di leen gën a tàllal loxo itam nga xam ne moom leen fas yéene daal mooy ànd te ànd la nu digal fas nañ yéene nag li feek noo fi ànd boobee nu ko gën di rafetal suñ kemtalaayul kàttan gis nañ itam ni ngeen ko jàppee mooy ba ngeen fi jógee ca avant première ba léegi jéego bu ngeen ci jéggi rek Ibra wax nanu ko te Ibra kenn la ci ñun kenn la ci yéen waaw du moom dong moo fa nekk nekkal nu fa nag waaye dañuy jàpp ne rek ay jëmm yu jaxasoo la ci lëggéeyal sëñ Tuubaa ba lu ngeen nekk ñu di ko xam nu itam li nekkee dara du leen ci ëmp loolu moom mooy li nga xamante ne ni daal mooy sunu yéene ñu ngi rafet lu bu baax a baax nag taxawaay lii itam ñu ngi ñaan suñu borom ñi nga xam ne dara tawu ko nangu ko ña ñu di ko def lan ci foog di ko ci jot yar suñu borom defal lu kawe seen jot ñi nga xamante ne ni ñoo fi nekk it na suñu borom bañ tee topp dara. te loolu xañ na ci nguur gi ndax toujours li may wax rek mooy bu nit ñëpp baaxoon ba mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëriñut suñu borom dara bu ñëpp bonoon ba mel ni iblis dara la ko wàññiwut doon na buur ba pare kon rëcc rëcc yi nga xamante ne nii mi ngi am te bàyyi ko ci càggante ak doomu aadama ñu ngi ñaan suñu borom effacé lépp yàlla dolli xéewal yi bu baax a baax te dëgëral taxawaay ba barab yi ngeen nekk lu ngeen ci yéene yal na suñu borom def lu kawe njot ñoo ngi leen di bu baax a baax sant daa mënta ñàkk rek moo tax ñuy yëkkati kàddu waaye bi ngeen waxee ba pare mel na nii rek wax ji jenn wax la ndax yéen a waxaat nooy tontuwaat ci suñ biir mu genn kuréel la rek waaw muy taalibe Sëriñ Tuubaa yu daje di wut lu baax ci ëttub Daaru Xuddus lool loolu rek la boo ëllëgee mën naa xew ci beneen ëtt waaye genn njaboot gi rek lay doon jërë ngeen jëf ñu ngi sant bu baax a baax wasalaamualeykum wa rahmatullah